Euh, maa ngi leen di nuyu yéen euh, di wax ne lii mooy leçon numéro cinq euh, ci Microsoft Excel en wolof tey nag point boo am importance mën na wax ne moo gën a importance ci li ma defagul lépp muy calcul ak calculer ak ak application Excel parce que suñuy wax puissance Excel calcul bi moo tax calcul bi moom dafa nekk loo xam ne su ngeen ko ci Excel rek lu ngeen bëgg a def lu ci bari dina mën a. sotti quoi amee il faut ngeen euh, jël seen temps euh, seetaan vidéo bi parce que euh, su ngeen comprendre rek utilisation Excel ci côté calcul bi dana yomb ci yéen trop léegi comme mu ngi bañ a nekk di appesantir ci côté kii définition calcul yooyu léegi dañu ñëw fii rek pour formule ni ñu koy bindee ci Excel. par exemple léegi avant ñuy formule bi nii par exemple da ngay bind égal après nga def euh, opération bi nga def par exemple calcul moom lu ci ëpp calcul yi gën euh, que Excel am dafa am bëri yoo xam ne nii yooyu yëpp mënuñu ko waxtaanee fii mais dañuy wax leneen li xam ne moo gën a élémentaire te au quotidien loolu ngeen di gën a soxla pour euh, def seen i defar seen i tableau Excel loolu moo tax mën naa ñëw. pour wan leen benn exemple bu simple léegi nañ dem ci application Excel bi léegi am benn fichier boo xam ne nii benn tableau si boo xam ne defaroon naa ko ci vidéo numéro 3 bi leçon numéro 3 bi léegi boobu dañ ci continuer parce que boobu dama koy soxla mooy achat matériel informatique comme ni nga gisee nii parce que bii dafa am ay euh, chiffres yoo xam ne nii ay prix yoo xam mën nañ ko calculer euh, mën nañ calculer euh, prix yi sans ñu koy remplir loolu mooy puissance su Excel ci ci côté bi. par exemple euh, fii dañu def euh, euh, quantité def désignation def prix unitaire def prix total mais prix total bi dama koy supprimer prix prix total bi dama koy supprimer boo bëggee supprimer da ngay sélectionner bi après nga bës nga bës bi bouton touche supprimer nekk clavier bi touche supprimer bi nekk clavier bi foofu ngay cliquer voilà mu effacé wu. Euh, léegi li tax ma effacé ko léegi fii nii par exemple bu nu amee cinq ordinateur ordinateur bu nekk di jar deux cent mille xam ne ni loolu cinq fois deux cent mille la léegi euh, pour ñu mën a def calcul bi de façon automatique léegi cellule bi nga xam ne nii moom nga bëgg def calcul foofu moom nga choisir boo choisir cellule bi léegi euh, ñu def au lieu que ngay def ay chi ngay def par exemple cinq fois deux cent mille mën nañ def mën nañ def loolu par exemple égal xaaral ma égal euh, cinq fois deux cent mille deux cent mille voilà parce que ko defee un million lay loolu lu am solo la ba baax na trop quoi su ma defee nii mais inconvénient bi mooy imaginal su ma changé woon sama stowu ordinateur ma def au lieu de cinq ma def quatre supprimer affaire bi au lieu de cinq ma def quatre léegi ba léegi gis ngeen ne affaire bi ñu ngi du changé un million bi ñu ngi changé kon déjà day fausse suñu léegi loolu moo waral euh, dafa am lu ñuy wax référence ci cellule yi nga xam boo dee boo dee def calcul au lieu que ngay jël benn nombre da jël da jël. Euh, turu cellule bi en en tant que cellule turu bi moo mooy gën a am solo parce que tur bi moom dafay des su su kii bi changé su valeur bi nga xam ne wala quantité li nga xam moo nekk cellule bi su changé loolu day calcul bi day daal di de façon automatique loolu moo tax mu am efficacité Excel tamit loolu moo tax am efficacité loolu moo tax ñu mën a def yenn programmation yu efficace yoo xam ne nii euh, déjà utilisateur bi su ñëwee ci application Excel bi nga defar. moom bu remplir ni mu war remplir Excel daf koy calculer automatiquement am résultat yi ñu am léegi nañ euh, effacer effacer lii euh, par exemple nañ effacer euh, boobu léegi au lieu que loolu xam nañ ne prix total bi toujours bu dee bu dee kii bu dee bu dee cellule bi nii parce que référence cellule bi nii wala non cellule D4 D4 toujours. day nekk par exemple A4 A4 moo nekk nii multiplié par C4 toujours loolu la parce que il faut nga xam référence cellule bu baax li ñu def mooy dañuy ñëw fii ci barre de formule toujours foofu ngay foofu ngay dem barre de formule bi déjà loolu expliqué woon naa leen ko ba comprendre ñu ko nga def égal boo defee égal nga def A nga def A4 multiplié par. gis nga ni ñuy sélectionné cellule bi excellent léegi multiplier par C4 euh, C4 voilà gis nga léegi léegi D D4 lii lay représenté A4 multiplié par C4 léegi nañ nañ cliqué foofu gis nga ni automatiquement day daal di calculer jox la prix total bu nekk huit cent mille excellent léegi imagine maintenant euh, au lieu de au de quatre ordinateurs cinq ordinateurs lañ jël bi maanaam euh, formule bi utiliser ko tax am solo mooy su kii valeur bi changé day changé xool leen bu baax ne may def léegi naa changé au lieu ma def 4 ma def 5 léegi su ma defee cinq gis ngeen automatiquement da koy remplir def ko 1 million. excellent su ma defoon fii nii 10 10 ordinateur par exemple naa def 10 ordinateur 10 ordinateur automatiquement daf koy def 2 millions gis nga affaire bi c'est tellement efficace. léegi dama leen di bàyyi ngeen entraîné ci afro bu am na addition am na multiplication am na division yooyu yëpp ça dépend ci par exemple man application bi table Excel bi ma leen defal nii pour l' instant nii bii nii multiplication la soxla mais ni mu ko wanee nii ci multiplication bi noonu la euh, doonee même chose pour division bi wala euh, soustraction bi wala addition bi amul amul différence euh, léegi bu ñu jógee ci loolu je pense que loolu comprendre nañ ko kon soxlawul may def imprimante bi imprimante bu boobaa li ñu référencé wu mooy bu boobaa fii cellule bi day doon D5 gis nga ni toujours doon ngir fii euh, non cellule bi euh, D5 kon D5 day daal di tolloo euh, valeur daal doon day daal doon A5 par C5 donc loolu loolu su su neex mën naa ko def fii mu gaaw tuuti day daal doon A5. à 5 euh, gis nga da ngay choisir c'est le multiplier par C5 c mu nekk 200000 su ma changé valeur bi fii quantité bi automatiquement day changé wu su ma changé prix bi day changé loolu tamit bu leen fàtte par exemple su ma nekkoon imprimante mu jëm nii au lieu que imprimante bu 100000 laa jënd bu 150000 laa jënd bu 150000 laa jënd bu su ma ñëwee fii def par exemple cent cinquante mille voilà day gis ngeen day changé automatiquement trois cent mille euh, gis nga puissance Excel nii la puissance bi nekk léegi nag dama leen di bàyyi ngeen entraîné wu total bi nii bu nañ ko gis nga total bi cent jours dañ koy dañ koy calculer waale dañ koy calculer ci kii ci euh, ci cellules yi par exemple total bi fii nii xam nañ ne ça sera égal à lii lan la D4 D4 plus lii lii euh, lii décart la plus D5 ñëw ñu euh, supprimer bi nekk fii léegi dem fii ci euh, barre de formule bi automatiquement nga def égal D4 plus D5 gis nga mën a fii addition soxla plus d gis nga automatiquement addition lañ soxla léegi gis nga automatiquement dafa lay mu nekk deux millions trois euh, deux millions trois comme ni ngeen gisee nii donc vraiment lii nekk loo xam ne nii mën ngeen ci commencer entraîner wu entraîner wu tableau bi ngeen mën a reproduire soo loolu sax mën ngeen ko dugalal ci pour ngeen télécharger wu yooyu ngeen xool nii nii rek c'est facile à reproduire mën ngeen ubbi seen application Excel ngeen reproduire tableau bi euh, ni ma ko defee exactement ngeen defee ko noonu. Euh, léegi nag bu loolu weesoo ñu ñëw fii ci euh, ci présentation bi euh, man lu am am solo loo xam ne dama bëgg balaa vidéo bi jeex ma explique leen ko parce que loolu ñu bari dañ ci am problème mooy ordre des opérations de calcul te loolu tamit su ngeen demee ba war a def ay calcul compliqué yoo xam ne day am multiplication division soustraction addition am ay parenthèses am ay euh, ay puissance comme ni ma ko waxee puissance mooy ex euh, exponentielle lañ koy wooyee yooyu yëpp déjà loolu dafay di compliqué moo tax loolu moo tax moo leen fii benn opération boo xam ne def naa ko pour mën leen xam est que mën ngeen trouver résultat bi ñu mel woon nañu ci bëri mënuñu ko ko trouver parce que il faut nga xam lan ordre des opérations lay signifier ordre des opérations mooy suñu la joxee opération yoo xam ne dafa bëri ay opération yu bëri ci nekk parenthèse toujours moom mooy moom mooy jiitu. moom ngay njëkk calculer moom ngay njëkk calculer en quelque sorte loolu signifie boo calculer parenthèse ba pare euh, yi nga xamee yi nga xamee nga xam ne nekk ci opération bi nga calculer puissance yi nekk ci opération bi léegi après soo ñëwee multiplication boo gisee dama ko leen boolee ci même euh, ci même case fii nii boobu bu njëkk ñëw rek boobu mooy mooy doon mooy moom lañu privilégié par exemple bu nekkee multiplication moo jiitu moom moom mooy moom lañu privilégié bu division bi moo jiitu division bi lañu privilégié de même chose pour addition ak soustraction bu ci jiitu rek moom mooy doon moom mooy doon mooy am privilège su addition bi jiitoo mooy am privilège su soustraction bi moom mooy am privilège loolu tamit dafa nekk lu ama am solo loo xam ne il faut ngeen bàyyi ko xel euh, léegi loolu moo waral fii ma ñëw defaat fii beneen présentation pour wan leen expliquer leen ni ngeen koy ni ngeen kii ni ngeen calculer affaire bi pour mën a trouver le résultat exact premièrement dañuy démarrer par parenthèse parenthèse yëpp bi mais mën ngeen gis yenn yenn application Excel yoo xam ne ne nii euh, il ngeen xam ni ngeen koy def ni ngeen koy utiliser sinon mën ngeen am euh, problème léegi fii dañuy euh, dañuy calculer nekk ci parenthèse mooy cinquante moins deux mu nekk quarante huit donc opération bi ñëw fii léegi quarante huit bi cinquante moins deux ko par quarante huit léegi ñëw fii li ci topp beneen opération bi xam ne moo moo moo moo moo am privilège mooy puissance donc puissance bi dañ ko calculer quatre à puissance de mu nekk huit Euh, bu nekk euh, seize bi mu des euh, moom moo tax ma def fii nii quarante huit divisé par seize gis nga ni yéen ba léegi parce que ñoom amuñu privilège après suñu jugee ci puissance opération bi donc division la ñu privilégié par seize loolu moo waral ñu am kon ñëwaguñ ci multiplication parce que division moo jiitu loolu tamit il su loolu weesoo nag. Euh, multiplication multiplication soog a ñëw parce que multiplication moo am privilège ci addition donc dañuy jël 3 di multiplier par 10 noonu mu nekk 30 donc mu nekk 23 plus 30 léegi comme ni ma leen waxoon addition ak soustraction bu ci jiitu rek moom moo am privilège comme fii nii addition mooy jiitu ci opération donc addition mooy moo am privilège donc da ngay jël 20 au lieu que moins 5 non non da ngay jël 23 plus 30 mu nekk cinquante 53. après léegi nga nga nga am euh, euh, kii bu mujj bi opération euh, kii bi opération mujj muy soustraction bi nga def 53 moins 5 mu jox la 48 donc normalement 48 la war a trouvé comme ni nga gisee nii loolu laa ne woon naa leen ko expliquer pour ngeen comprendre ko jàpp naa ne daal formule yi loolu la lii moom dama leen wan nii rek pour ngeen am ci notion mais comme ni ma la wax puissance Excel mi ngi nekk ci calcul yi calcul yi moom suñ ko maîtriser rek. Euh, dèjà luutu leen am problème pour euh, defar tam effica euh, Excel bu efficace boo xam ne nii ñeneen ñi doon ko mën a utiliser pour dugal ci ay ay yoo xam ne automatiquement application bi daf leen di defal calcul yi génne leen résultat yi ñu soxla maa ngi leen di jaajëfal yi ñëpp baax na.